رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واسترشد برشده إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن صاحب القتم والكتم مولانا أبي العباس أحمد التجاني نفعنا الله ببركاته آمين mbokki قدام الطريقة التجانية ñu ngi leen di nuyu di leen ziyara di leen balu di leen baal di ñaan yàlla subhanahu wa taala mu boole ñu di ñaan yàlla subhanahu wa taala def ñu ñuy ay taalibe radiallahu taala anhu def ñu it ñuy njabootu yonente bi sallallahu alayhi sunu mag ñi nga xam ne ñoo ŋànk tariqa bi yëpp yal na yàlla yokk seen leer yàlla yeesal ci ñoom yërmandeem yeesal ci ñoom njëggalam sunu maam sayidil xaaji malik si radiyallahu taala anhu moom it dañ koy ñaanal yàlla yokk leeram ba tey ñi ngi doon ànd ak moom ci jaar-jaaram ba tey ñi ngi tolloog sunu buntu wala sunu leçon wu fukkeel ak juróom ci dundam radiyallahu taala jàngoon nañ ko moom ba mu nekkee gaaya bi mu nekkee Ngambo ci la bi mu nekkee Saint-Louis bi mu nekkee Njaarnde ak bi mu nekkee tey jii ci Tiwaawoon ñu tolloog moom foofu Seydil Hadji Malick 1902 ñëw na Tiwaawoon ba mu ñëwee Tiwaawoon itam ëlbiti ne na beneen page bu mu war dundaat muy page bu bees boo xam ne ndax lamu mu liggéeyoon ci foofu mu nekkoon bi mu ñëwee Tiwaawan ñeneen ñi bees ñoo ñëw mu ubbiwaat beneen paas bu bees waaye Seydil Xaaji Malik radiallahu anhu soxlawul woon xoolu doomu aadama yi ngir defar dundam waaye dafa soxla woon ci ñoom ak nite ba société ba ñuy dund société boobu ñu mën koo tagg ndax wa ma sawadal aqtaaru illa rijaluha kon li mu soxla woon ci ñi ko daan fekk ci tiwaawan mooy ñu nite ba société bi ñu dund ñu mën koo xool bëtub ña fay dund ay nit lañ ndax nit ak doomu Adama dafa bokkul doomu aadama li mu soree ak baxima du bari waaye nit nag moo soreek baxima ndax sayid cheikh ahmad tidiane si al maktoum radiallahu taala anhu dafa wax ni fa shurbu wal aklu shahiyu wa lazzatun wal jinsu mawjudun bi zilli ximaari wal farqu bayna al waxshi wal insaani fi naadi al karamati xikmatum min baari dafa wax ne su fekkee ne lekk ak naan gëmminte ak nelaw sëy ak bànneexu loolu rekk mooy doomu aadama kon it bahima yi ñu ngi def loolu mu ne waaye nag ak njaay àll li ko wuutale li ko tàqaleeg nit mooy xekk ma bi yàlla def ci doomu aadama kon xekk ma boobu soo ko dundalee dangay nekk nit ku nitee Seydil Xaaji Malik radiallahu taala anhu bi mu ñëwee Tiwaawoon fekk na fa ay nit yu nite di def seen wargor ci wàllu nite waaye Seydil Xaaji Malik daf leen a dolli dafa commencé wat lañu manqué mu jéem koo mottali ci ñoom bés bu nekk mu wan leen dara commencé ñoom tarbiya ci wàllu bakkan dafa leen tarbiya ci wàllu himma ak xaal ba te dëppale kook jamono fexe ba jamono du leen raw radiyallahu taala anhu noonu la doon def ak ñoom ba tax na beneen dund gu bees judduwaat ci Tiwaawoon ak la ko wër mu delloo leen def leen ñi nit ñu dal nit ñu teey diiru ñaar fukki at ndax 1902 ba ni 1922 Seydi Aji Malik di jëfandiku ak ñoom yu mel noonu fexe ba li nekkoon ci moom yépp mu jëmmal ko ci Tiwaawan ak li ko wër fu mu yëg ne yiwa nga fa mu xëcc ko indi ko fu mu yëgit ne barkee nga fa mu xëcc ko indi ko ba moom Seydi Xaaji Malik ci boppam aw turam yëkkatiku ca kaw dara jaam itam daal siiw ci gox yi loolu moo taxoon ñi ko doon dégg di ko dégg ci melakaan wa rafet tax ñu soppoon daje ak moom bu ñu ñëwee wékk seeni mbir mu yoral leen ko ci boobale waxtu loolu moo indi woon nit ñëpp dëkkmal Tiwaawoon di ko seet si ñenn ñi dañu ñëw di delluwaat waaye ñenn ñi dañuy ñëw di toog loola taxoon na mu dem ba Tiwaawoon xat ak moom amatuñ suuf sunu bayee waaye tam béréb yi ñu dëkk radiyallahu taala anhu lii mooy sababu mu jéem a wut tool fële ca jagsaaw wut fa beneen dëkkitam ngir euh, ñenn ñi dem dëkki fa radiallahu taala anhu euh, sayid ilhaaji malik radiallahu taala anhu bi mu ñëwee tiwaawoon objectif bi mu jëkk bi yi mu am dafa lancé ñaar benn bi mooy béréb ba muy daane dooleem tuur fa aw ñaqam lu mu am mu lew ko ñaareel bi mooy bërëb boo xam ne dana fa jàngale yare fa defal fa nit ñi tarbiya defal fa nit ñi tarqiya kon ñaar yooyu moo ko gënoon a ñor bu fekkee béréb boo xam ne mooy bi mu war a tuure aw ñaxam dunde ko دا ديالو ديلو تي واخ جي احمد شوقي رضي الله تعالى عنه وخن نستعي الفتى لرزقه عباده وسبب يهدي الى السعاده لان بالسعي صلاح الكون والله للساعين خير العون من يسعى لرزقه اتاه طيعا فمن ينم وقد جنا وديع دم بوخنا المسلم حق يصلي فرض ويهمل الفأس ويسقي الأرض ويجمع بين الشغل والعبادة ليكفل الله له السعادة لولو سيد الحاج مالك تخون لمجك دف موي ووت fu muy tuure aw ñaqam moom ak i njabootam ñu dunde mu lew leen radiyallahu taala an mu wutaat beneen bërëb boo xam ne ngir jaamu yàlla la waaye ngir jàngale la ngir defal nit ñi tarbiya la ngir defal nit ñi tarqiya la muy zaawiyam boobu nga xam ne balaa mu ñëw Tiwaawan fekk na mu commencé ko at ma mu ñëwee ci la zaawiya boobu àgg radiyallahu taala an mu ne fii kat sama daara la joo xam ne man Maodo maa fi jëkk a jàng ndax ki may jàngal dama koy jànge moo tax mu Sëriñ Cheikh wax ne euh, jaalat joxlet haadihi madrasa mahallan wala mu ne Seydi Xaaji Maal dafa wax ne jaaltu haadihi madrasa maxallan uallimu wa fi fiiha mu ne jël naa daara ji def ko béréb boo xam ne dama fay jànge waaye di fa jàng di jàngale dama fay jàng difa fa jàngale ndax képp koo xam ne jàngal na la maa ngi jànge kooka moo tax Seydil Haaji Malick dundam yëpp njàng la dundam yëpp jàng la jàng dund na ba dugg ci biir bàmmeel waaye moo firi la yonente bi dundam moo firi la yonente bi waxoon ne njàng moom minal mahdi ilal lahdi dundam moo ko firi radiallahu taala anhu e sëriñ Alioune Guèye radiallahu taala anhu nee na Seydil Xaaji Malik ku modeste la woon nee ku ormaaloon njabootam la te nawloo ko ormaal boobu mu ormaal njabootam nawloo njabootam taxoon na njaboot yooyu jël ci moom loolu ba ku ñu dendal ormaal la nawloo la nee na daf daan gëstu daf ñu daa gëstuloo ci mbir yu wuute nee na di deflanteeg ñun ci loola demoon na sax annahu rubama ra'ahu yu taarixu baada talabati mutaaraxatan xasana ka annama yu taarixu baadu zumalaa'ihi sëriñ Alioune Guèye nee na Seydil Xaaji Malick radiallahu taala anhu daana defanteeg taalibeem yi mutaaraxa bu rafet ba mel ne maraamam la koy defal soo ñëwoon tey benn collègue am la koy boo ñëwoon tey da doo jàpp ne sëriñ ak taalibe la waaye da nga jàpp jàpp ne ñaari camérat rek ñoo di waxante nii Seydil Xaaji Malick dafa am lu mu gañee waa réew mi ñi mu bokkaloon réew mi mooy ñi mu réew mi alwaxmu lañuy àttee mbir yi te Seydi Hadji Malick xaqiqa lay àttee mbir yi nee na lu bëtam tege du ko xoole bëtu ban waaye bëtu xaqiqa la koy xoole loola itam mu jàppe ko xaqiqa moo tax sëriñ Cheikh waxoon ni laa tansuri dunya بعين كونت من طينة لو كنت فيها تينة سيد الحاج مالك بيقول خول مبير دوكو خول بتو بيغا خانا موي نغو بتو ني غيسه واي دا فاي خول بتو بصيره واي تام لامي خول دوكو خول جيمي لولا واي دا كاي خول بتو حقيقه رضي الله تعالى عنه موت تاك نينن ني موتاخ سيرين شيخنا ولقد درست شؤون هذه الداري فبحثت فيها عن خيال ساري وسألت عن معنى الحقيقة للورى والوحم يحكم فيهم بقراري سيد الحاج مالك فافلووتك نيم بوكل ريومي ندخ الوحم لني أتي دفنا نانغام نانغام لا وايه موم بعين كوينت من تينة دوك خوله وايه عين الحقيقة لي خوله وايه تم لمي جس aynul xaqiqa la koy gisee ñi mu bokkaloon réew mi itam dañoo jàppoon ni barke xam-xam dafay aju ci bari taalibe Seydi Aji malit ne déedéet barke xam-xam kay mi ngi ci la nga xam nga jëfe ko loolu la wuute woon ak ñu bari ci gis yi sam itam mu jàppee ñu bari ci réew mi dañoo jàpp ne li taxoon ñu takk soxna mooy bari njaboot سيدي أجي مالك ني كونترير بلا جيس دا فا جيسون ني نديكتي سي كاي لي تخ ني كاي تاك لي تعفف ما تخ ني واخ ني ويرى الأئمة أيضا أن الغرض من النكاح هو النسل وهو لا يرى ذلك إنما يرى أن النكاح لم يكن إلا للتعفف والصيانة للمجتمع moo tax radiallahu taala anhu daana wax naan fii ci sénégal day luy nu rokkub sëyee fi am waaye ni ka islam rëdde dëgg-dëgg amewu fi moo tax mu waxoon ne inna shibha nikaahi aksaru fi haasihi alqotr min annikaahi li anna annaasa laa yuraacuuna fiihi فيه القواعد الشرعية بل يراعون التقاليد العقيمة موتاخ مو إن العادة نشأت هنا وأظهرت أنيابها الحادة التي لا ينزعها إلا من لم يقف من عدها منا أرد de في na بسخ في na fi ينونك ku ragal mu matt la de doo fi jële kon dangay ngay nangu kaa jox sa loxo mu matt ko nga doog ko fi mën a jële radiyallahu taala anhu moo doon fi lii moo doon hëdëfam loolu moo taxoon ci daaraam radiyallahu taala anhu mu taxaw temm nag ci fas yéenee jàngale lan la doon jàngale moom Seydil Haaji Malik ci daaram Euh, sayidil xaaji malik radiallahu taala anhu xam nañ ne kon ñaari hëdëf yi nga xam ne moom la amoon benn bi mooy zawiye bi di daara ji mu war defere nit ñi ak tool yi nga xam ne da war a bay di dund ñaqam waaye itam di fa defare it nit ñi ci wàllu njàmbaar ak dëgëraay euh, kon suuf si dana xaw jafe ci moom loolu moo ko mu dem ci béréb bu ñuy wax jagsaaw wut fa tool ba am fa kër ba sax mu mujj nekkub dëkk waaye bu dee ci daara ji nag lu mu fa doon jàngale yan xeetu xam-xam bokk na ci lam fa doon jàngale alquran ak la aju ci alquran bu ñu waxee alquran ak la ca aju mooy taxfiisul quran fexe ba nit ñi mokkal quran ak lan tafsirul quran fexe ba nit ñi mën a tafsir quran tafsir bu dëpp ak jamono te leer te am solo kon mokkal fa al quran mokkal bu wóor tafsir fa al quran ak lan tajwidul quran ak tajwid ko rafatal nangu jange jànge ak luñu wax ilmu rasmi ak naka nga koy mën a bindee kon yooyu doon nañ ko jàngale ci daara Seydil Haaji Malik ñaareel bi ñu ne dinañ fa jàngale xadis yonent bi alayhi salaatu wassalaam ilmul xadis ak mustalahaatu xadis yépp nga xam ne xadis bi bu ñu ne yonent bi ko wax daañu mën a indi sanat bi indi matn bi xool ruwaat yi ñi ko solo ndax ay sixa lañ wala duñ ay sixa anak kuñ ci jam ak kuñ ci dul jam ba sax ba addis ba di wér ba addis ba nekk la muy nekk moo xam saxiix la moo xam daif la moo xam marfuu la ila axirihi daanañ jàngale xeetu xam-xam boobu ci daare Seydil Haaji Malik ñetteel ba daanañ fa jàngale tawxid ilmu tawxid lépp loo xam ne day tax yàlla nga jox ko yàllaam jaam bi nga jox ko jaamam jaam bi nekk jaam yàlla yi nekk yàlla loolu dañ ko doon jàngale ci daara Seydil Hadji Malick naka noonu du nañ fa jàngale it li ñu tuddee fiqh ak usulul fiqh yi daal di fa jànge nu ñuy déggee sharia nu ñu koy attee kan la atte bi dal ci kawam kan bu ko defee lu mën a xew ci wàllu sëy yaag julli yaag woor yàgg lépp lu laal sharia doon nañ ko jàngal ci daara Seydi Aji Malik ak doon nañ jàngal ci usul ba itam radiallahu taala anhu naka noonu itam daanañ fa jàngale lu ñu tuddee a tasawuf xam-xam buy dellu ci wàllu tasawuf ak xaqiqa naka ngay rafetale ni ngay jàmmoo yàlla naka nga koy sellale naka ngay mën a di yéeg bés bu nekk ay jéego jëm ci côté yàlla subhanahu wa taala loolu nga xam ne mooy tasawuf daa nañ ko jàngale ci daaray Seydil Haaji Malik daanañ nañ fa jàngale itam lu ñuy tuddee naxwu ak yenn roog moom moo xam naxwu la moo xam sarfu la moo xam istiqaala ak yeneen xeetu xam-xam yoo xam ne daf lay jàngal grammaire waaye jàngal la li nga xam ne moom mooy tax nga man firi alquran ak yi caaju da lañ fa jàngale xam-xam bu ñu tuddee ilmun insha ni ñuy sos mbir mbir insha nga xamee da nga mën a bind dara wax lu bari te muy jariñ ak xattu ak luxa nga xam ne da nga jekkul luxatul arabiya ak fànn buñ ko mën a jàngale moo xam nga jàng daliya suaraaw sitta ak yeneen ak yeneen naka noonu daan lañ fa jàngale xam-xam buñ tuddee balaaxa ak mantiq bayaan ba badia ak euh, la tuddee ak yeneen xeet maani ak yeneen yu bare bare bare bëri daanañ fa jàngale xam-xam bu ñuy wax arud muy dellu ci xam-xam nu ñuy saddee nu ñuy defaree ay woy niñ koy peesee nañ koy mànd ak yooyu ci aju ak ilmul xarat mooy ba tey wàllu woy daanañ fa jàngale xeet yu bari yu mel noonu daan lañ jàngale ci daara ji ilmul falak euh, nu ñuy fexe ba xam ci wàllu euh, weer yi wàllu planète yi na muy doxe daan na fa jànge xam-xam bu ñu tuddee ulum mu dellu ci kimia dellu ci fisiya dellu ci géographia da nga dégg sëriñ Babacar Si naan ko kimia un ahla dahrin xaakamu xaakamu badran duja laylam bara daan fa jàngalee xam-xam bu dellu ci ilmul iqtisaad moo dellu ci nañuy ñuy alal ju teey li dugg ci njënd dem ci njaay bay yaxantu ba mëna a yooyu daanañ fa jàngale ak ilmu tabia li xam-xam bu dellu ci wàllu nature bi radiallahu taala bu ñu toppee xam-xam yi fi doon jàngale bari na daanañ fa jàngale xam-xam bu ñu tuddee alfarasa Euh, muy xam-xam boo xam ne dafa ëmb xeetu xam-xam yu bare baree baree baree boo ci duggoon dangay sonn am na bokk na ci lu ñuy wax al iyaafa ak al xiyaafa ak al riyaafa ila axirihi xam nga xam-xamu euh, xiyaafa mooy boo ñëwee gis benn tànk euh, moo xam ki kii dafa sol dàll wala sulul dàll ki doxinam nga jàngat ci ne kii kat mi ngi bokk ci askanu sàngam wala nga ne kii diw la farasa moo koy joxe xam-xamu farasa moo koy joxe mooy te bokk daa bokk ci biir xam-xam boobu li ñu tuddee al bu dee al xiyaafa kooku ñi jàngal fiq xam nañ ko euh, euh, boroom xam-xam yi itam wax nañ ci lu bari xiyaafa mooy ni ngay xamee nit ki ba xam ne kii fii la bokk mën nañ koy yëgal ci kii moom ndax boo ko xoolee am na yooyu xool ci moom moo benn tànkam walla yaramam wala bëtam walla lenn ci moom lu lay tegtal ne kii diw mii moo ko jur kooku ñi jàng fiq daañu ko dégg buñ ko xoolee daañu ko gis fi imam wax na ci imaamu shafii wax na ci abu xanifat kenn wax nañ ci wax ji bari ci xam-xam boobu bokk na ci xam-xam bu ñu wax xam-xam bu dellu ci eh, riyaafa mooy riyaafa mina turba mina turbati wa rihati wa ru'yati nabati wa harakat alxayawanati nga xam ne da xam boo ñëwee rek ci suuf si xet ga fay jóge ga fay gilli wala ñax ma fa sax looy lay ja wala baxima yi fay doxantu nga xam ne suuf si am na lu fi nekk maanaam am na ndox am na ndox nga xam ne fii bu ñu fi gasoon sax tey daañ fi mën a jële ndox xeetu xam-xam yooyu doon nañ ko jàngale ci daara yi Seydi El Hadji Malick wax nañ ne benn xam-xam rek lañ daan jàngi lañ daan jéggi di ko indi mooy riyaadiya am na amoon na fa waaye am na ne moom dañ ko daan jàng ci biti di indi ndax mu ngi amoon ci daara ji ñuy wax daara yi Euh, euh, góor gi Muxtaar Sakho ñu ne ñoom ñu doon jàngale rayaadiyat moo tax Seydi Hadji Malick moom rekk moo bind ci xeetu xam-xam yu baree baree baree bare ci ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci senegal surtout nag ci wàllu miraas ak wàllu naxwoog bépp xam-xam bu jafe Seydi Hadji Malick bind na ci moom rek moo ko fi def nag xam-xam yi jafe yépp bind na ci radiyallahu taala anhu loolu bu ñu ko bëggoon tey seede wax ji ñu wax buñ ko bëggoon a seede ne fu ñu ko teg ne say daara di Hadji malik yi amoon na ca dañuy dellu ci sëriñ alim Guèye radiallahu taala anhu moom moo ko seede keroog bi Seydi Hadji malik faatoo sëriñ alim Guèye di ko jooy dafa wax ne la yabki amiral muminina kafilahum xamaahum la daa kulil aza wa tahaddudi من ومن سا يسد القزية والفخر والبلا فصحصح أدن فصحصح أدن الناس الرزائل ينجدي داتني ومن لي برفق القطب إذ جاء فجأة يذكر هذا قطبه كل مشهد سري ومن لي بإخراج الحقائق الناسهن am benn ngoog wa man lii bi tadrisil kitaabi wa musnadi ñaara ngook wa man lii bi warsin bal junaydin wal ashari alquran ci njàngum wars fu ñu koy jëleeti ko ñu koy njàngalee comme ni ko say la ajimal doon jàngalee fu ñuy jàng jëleti tasawuf bu mel ne imaamu junaydi waaye fu ñuy jëleeti al way yu neex wala pas-pas bu set bu mel ne imaamul ashari ومن لي بآداب والدرب المؤدد بنين نغوك ومن لي ببثل الفقه والنحو منطق بيان معانيها بديع بمشهد فني جلتي كني يلي القم قم بملن فقه سطب إمام مالك ولا مصاحب الأربعة نحو كم نكسي بوحي ملون منطقك بيانك معانيك بديع فني جلتي كني جانغلتي لولو ومن لي بنجم كن جانغلتي علم الفلك ومن لي بنجم في نجوم وموصل أصولا كوني جانغال تن أصول عروضا سيرة البدر مقودي كوني جانغال أصول أنا كوني جانغال تي عروض واي كوني جانغال سيرة يرنتبي التاريخ رضي الله تعالى عنه ومن لي ببحر يستقاس بورده كوني جانغال تي تاريخ الشيخ وأمواجه يروى بها غلل الصدي ومن لي بأستاذ yurabbi muridahu bila xalwatin bal himmatun misla ahmadi wa man lii bi taalifin yuzakkiru mamada qadiman ala nahji rasuli musaddadi kon loolu Seydi Alioune Gueye moo seede ne daaray Maodo yii dañ ko ci doon jàngale léegi nag nañu dem ci wàllu toolu jagsaaw lu ko indi woon waxoon nañ ne Seydil Xaaji malit si radiyallahu taala anhu bi nga xamee ne nekk na Tiwaawoon turam siiw na jikkoom siiw na xam-xamam siiw na mu toog Tiwaawoon ñeenti at ñiine ne juróom-benni at ñaari at nit ñi di ko dëkkmal si ñii ñëw di taaq ñii ñëw di dellu Tiwaawan xat na amatuñ fu ñu mën a bayee te loolu dafa bokk ci objectif amatuñ kër yi doy léegi nag mu daal woo mbokk yi nag waxtaan ak ñoom lii kat boo demee ci alxaaji Abdul wax na ko nee na góor gi yusufa jóob radiallahu taala anhu nee na seydil xaaji malik si mi ngi sañc jaksaaw fas saaw atum mille trois cent vingt-deux mille trois cent vingt hijiriya lañu ko sañc loolu boo ko de xool mi ngi tombe ci atu tubaab yi mille neuf cent eh, ci miladiye te kooku di sëriñ Yusufa Jóob bi ko nettali moom la Seydil Xaaji Malik joxoon mbir tool ba jagsaaw mu koy saytu comme na mu ko war a saytoo mu nekkoon nit ku dëgër bañ tuddi kaw doj ku dëgg woon Malik nit ku fegu woon ku amoon kóolute radiallahu taala anhu Seydil Xaaji Malik mayoon ko doomam kooku ma waxoon ne atum mille trois cent ci hijriya tombet 1904 ci lañ sañ ci li nga xam ne mooy jagsaaw nu sañc ga demee woon nu sañc ga deme woon wax naa ne bi nga xamee ne Seydil xaaji Malick loolu ma wax jafe-jafe yooyu taxoon mu woo ay mbokkam ne leen aa ah, ñun ndey Tiwaawan xat na tool yi amatuñ fu ñu bay kër yi mi ngi commencé néew ban pexe lañu war a am mbokk yi ne ko diggante dëkk bu ñu béréb bu ñu wax mamma ak sanc siin am na benn lu ñuy wax foore bu yaatu boo xam ne kenn bayatu ko kenn bayu ko foofa de boo fa ñaanoon bu ñu la mayoon dana baax waaye la ko yàq mooy amul ndox Seydi Xaaji Malik ne ñàkkum ndox warul tee waruñu faa tee dem Seydi de Malik radiallahu taala anhu xam waxoon nañ ne dafa amoon farasa xam-xam boobu ak yamu dajale te bokk na ci lu ñuy wax riyafa te riyafa dafay dellu ci wàllu ndox moo tax Seydi Xaaji Malik yooyu jaaxalu ko woon te jamono boobu colonial yi woolu nañ Seydi Xaaji Malik Saint-Louis ba mu ñëwee ñu wax ko tuuma yiñ teg ci moom mu dindi tuuma yi ba mu set wecc ba tubaab bi mu wóor que ne Seydi Hadji Malick li mu wax mooy dëgg mais ñëw di rambaaj li ñu wax mooy ay fen keroog mu daal di bind benn téere benn benn benn xaatim benn décret moom gouverneur Ndar jox ko Ahmad Ndiaye Januar ne ko jox ko Seydil Hadji Malick ne ko suuf Sénégal leew na ko fu mu fi bëgg mën na faa bay mën na faa dëkk xam nañ ne ku baax la xam nañ ne li muy wax mooy nekk lu dëggu Ahmad Ndiaye Janwaar indi ko ci Seydi El Hadji ne ko foo bëgg ci suuf leew na la Seydi El Hadji Malick ne ko ah man day jag saaw laa doon wax waaye ñoom am nañ boroom gouverneur Ndar moomul suuf soosu suuf sax ñaka moom mooy ñi nga xam ne seen maam moomoon ñu doon ko ci seeni maam kon te ñoo dem ba foofa ci ñoom buñ ñu joxee ñu jël buñ ñu xañee ñu ñàkk ca maandu moom Seydil Hadji Malick euh, Seydil Hadji woo ñaari taalibeem yónni leen ci suufu jag saaw soosu ki nga xam mooy kilifa dëkk ba ñamoom moom suuf sa di góor gi Mouhamadou Moustapha Tey Seydil Hadji Malick bind ko leetar wootaay bi bu ñuy wax Maam Majoor Amar ak góor gi Makodde Diop wala Makoddu Diop ñu ñëw jag saaw seet si góor gi di Cheikh Mouhamadou Moustapha Tey nga xam ne ñoo moom suuf su jag saaw ñu ñëw jox ko leetaru Seydil Hadji Malick ba mu leen dalalee jàng leetar bi nekk suuf si lew na ko kooku dëkk ak moom rek laa bëgg lu mu bëgg fii rek man na jël lew na ko doom loolu mooy benn riwaaya bu njëkk bi am na beneen riwaaya bu wax ne Seydil Xaaji Malik yónneewul waaye dafa demal boppam ànd ak euh, euh, chef de canton bi ñu wax Ahmad Njaay janwar nga xam ne moo fi nekkaloon tubab bi ñu ne ba ba ca suuf Seydi Xaaji Maalik def na leen toog leen ma dem waxtaan ak ñi moom suuf si buñ ma joxee fa lillaahi alhamdu buñ ma joxul alhamdulillahi ala kulli xaalin sañ nañ ko ñu toog moom mu dem nuyoo ak góor gi Moustapha Tey góor gi Moustapha Tey dalal Seydi Xaaji Maalik yaatal ko ne ko suuf si lew na la loo ci bëgg lew na la ndax dëkk yow neex nañu kon nag yaa yow la dese ñu wax de Seydi Haaji malik jël na sax xaalis ndàmp ko ñi nga xam ne ñoo moomoon suuf soosu ca comme ñeneen ñi ni ko waxee kon ñaari version yooyu moo ci am waaye daal lu ci mën a xew bi nga xamee ne ñooñu Seydi Haaji Malick del si na Tiwaawan wala ndaw ya mu yónnee woon ca góor gi Moustapha Tey del si nañ Tiwaawan toog nañu waxtaan ñu ne nu def nag pour exploiter tool yooyu ñu mag ñi waxtaane nañu Seydi Aji Malik yi daal di woo ku ñu wax góor gi morloo mu boole ko ak mbooloo nekk nañu dem ca tool boobu àll boobu di jëg saaw ñu jéem koo gor buñ ko goree ba mu àgg ñu defar fa dëkk waaye itam ñu euh, defar fay tool loolu nag ci jamono boobu nga xamee ne yebal nañ góor gi morlu ak mbooloo ma ñu jàpp bis boo xam ne bis bu ñu yëgle la ñu dëkkee côté yooyu yëpp ñu yëgal leen ko pour ñu daje fa war a defar tool boobu war a gor àll boobu Seydil Haaji Malik amoon na benn taalibe bu woo dañ ko daan wooye almujtahid Abdullahi Gay alxisabi nga xam ne lépp lu muy def daf koy këlkin mu këlkin moom ne ñoom de bu ñu amoon ci wàllu jaas yi ak yu nurook moom lu mat juróom-ñaar fukk kon daañu mën a jëf liggéey tool bi ci benn bis kooku kon defe naa ne mooy bu ñu amoon juróom-ñaar fukki góor yu am jumtuwaay mu ne itam bu ñu amoon ci wàllu xepp ak siima ñakk yu nurook moom lu tollook ñeent fukk kon daañu mën a liggéey tool bi ci benn bis loolu mu ngi tekki ne bu ñu amoon ñeent fukki góor yu am ay sémmiñ ki pikk ak eh, ci aju kon daañu ko mën a eh, kii defar boole càkk bu ñu amoon ay radu yu doy ay bale yu doy ay gopp yu doy ànd ak ñooñu kon mbooloo mu bari mooy tax àll boobu fekk eh, ñu defar ko loolee la ñu dajale nag daadi dem ca tool ya jàpp benn bis dem ca ci benn bis lañu ko liggéey tool ba daal àgg bi tool bi àggee ci benn bis raddu nañ ko gor nañ ko euh, bale nañ ko léegi nag ñi ne kon nañu rëdd kër yi nga xamee ne mooy dëkk bi ñu daal rëdd génn kër ne kër gii day kër Seydil yi Malick la rëdd beneen kër ne fii beneen place ne fii jàkka ji la mooy fàttali lu mën Madinatul Munawwara keroog ba yonent bi ñëwee bëgg leen ba boofee boofaat daal di daal beneen kër ne kër gii de mooy kër góor gi moorloo moom moo jiite woon mbooloo ma ki liggéey ba rëddaat beneen kër ne kër gi de kër góor gi moor anta kebe la kooku doomu bàjjanu Seydil Xaaji Malick la maam anta euh, surang si moo ko jur maam anta surang nag kooku maam Demba bu naa ko jur rëddaat geneen kër ne kër gii kat kër góor gi Muxtaar Géey la daat génn kër ne kër gi kër Alioune Diouf la muy bëkk néegu Seydi El Hadji ak ab seexam ñu naan ko alxaaji jaxeer Fall wala xafiir Fall ñu daal di wutaat beneen kër daal na gii de kër rakk la kii rakk nekk rakk ci Seydi El Hadji ñu naan ko góor gi Momar Binta Si maam Ahmadou Seeka jur wala maam euh, euh, dama juum maam Moxtaar Penda moo ko jur maam Moxtaar Penda maam Demba Buuna daa di rëdd geneen kër euh, waa ñu daal ba ñu paree nag ñu jël dëkk ba daat ne nañ ko teg ci loxo yi góor gi Momar Binta Si mu yilif dëkk bi ñu daal nekkoon nag ki nga xam ne mooy imaamu jàkkat yi nañu tànn góor gi di góor gi Momar Anta Kebe di doomu bàjjenu Seydi El Hadji Malick nekk imam bi kon léegi jag saaw taxaw na euh, ñi daal nekkoon nag nañu tuddee dëkk bi ci boppam ak tool bi ak dëkk bi xam nga sore nañ lu tolloog euh, euh, maanaam tool bi xaw na sore ak jaxsaaw lu tolloog dëkk bi laa xalaay bëgg a wax dëkk bi ak tool bi xaw nañoo soree lu tolloog un kilomètre léegi nag tool bi lañ tuddee misra dëkk bi ñu tuddee ko faas béréb boobu nag doon jaxsaaw ñu naan faas jaxsaaw loolu kon mooy sababu defar bi ñuy defar faas jaxsaaw léegi nag dëkk baa ngoog Seydi Aji Malik am na fa kër góor gi Mor Lo am fa kër góor gi Mor ante Kebe am fa kër góor gi Moxtaar gi am fa kër góor gi Alioune Diouf am fa kër ak mbokkam Xayfar Fall ak góor gi Mor ante Kebe góor gi Mor Binta Si ñu jël nag dëkk ba ne góor gi Mor Binta Si mooy borom dëkk bi imam bi mooy góor gi Mor ante Kebe radiyallahu taala anhum ajmain léegi nag Seydi El Hadji malik dem bi mi dem pour seeti tool boobu jóge Tiwaawan Seydi Aji Malik bii loolu pare ma ngay jóge Tiwaawan nee na ma ngay dem ca tool ba di jagsaaw ak dëkk ba di Faas mu daal di départ Tiwaawan gonte fa daldi ñëw piir Gure yi fanaan fa mi ngi fanaan ci kër commerçant bu ñu wax Moussa Dieng ba mu yewoo ñu defal ko waruwaayam muy fasam naaru góoram mu war ko ànd ak mbooloo ma ñu nga jëm jagsaaw Seydil Xaaji Malik ak si fa ab yoor yoor ba mu ñëwee nu nit ñi ñu ziyaaraka bi nga xamee ne tisbaar jot nañu nodd Seydil Xaaji Malik jóge na ci këram ñëw na ci jàkka ji taxaw ci buntu jàkka ji am na garab gu fi nekk gu baax gu dëll mu taxaw ci kër garab gi xool penku xool soowu ndeyjoor ak càmmooñ daan ne alhamdulillah nii laa bëgge woon mu meleen nii distance bi am sama di sama kër ak jàkka ji nii laa ko bëgge woon te fekk maa ngi am kàttan itam nii laa bëgge mu koy mel ne alhamdulillahi rabbil alamin daal di dugg ci jàkka ji def tahiyatul masjid ba mu paree mu julli ñaari rakkaa naafila mbooloo mi def li mu def ba ñu pare ñu taxawal julli tisbaar mu julli tisbaar ba mu paree mu julli ñaari rakka ñeenti rakkaa mbooloo mi julli ñeenti rakkaa naafila gannaaw tisbaar Seydi Aji Malik génn ci jàkka ji toog ci suufu garab googu mu taxawoon ci buntu jàkka ji nit ñi wër ko nag mu waxtaan ak ñoom mu waxtaan ak ñoom daat ne na ngeen sax fii di xaar ndigalu yàlla na ngeen boole seen xol yi ba xol yi nekk benn seen loxo yi nekk benn seen tànk yi nekk benn te ngeen di jéggul seen boroom kon léegi yàlla indi leen ndox istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursili sama aleykum midrara ila axirihi mu ne nag leen laa xam ne moom duma ko diggee ak yéen te du leen ci xeertal ngeen di takk ay soxna yu bari du ma leen ko digal du leen ci xeertal ndax dafa bari góor goo xam ne dafa takk ñeenti soxna waaye la muy jox ñeenti soxna yépp doyul kenn soxna ki xam nga loolu mu ne loolu jaatugut takk jigéen ñu jox la ko nee na nga dajale ñi ñeent te ñeent yépp la nga leen di jox doyul kenn ki mu ne loolu jaatugut mu ne itam sharia dafa bëggoon buñ la joxe jigéen la mu war la war ca jigéen jëm mu def ko waaye li war ci yow nga def ko li war ci yow su ko mënul def nag nee na nga wutal ko ko defal ko def waaye ndax nee na jigéen ñi fii kat ci àdduna amuñu ku leen atte amuñu xaadi amuñu avocat amuñu batañe waaye ëllëg yow mal xiyaam am nañ batañe bu leen di euh, plaideel kon nag nangeen bàyyi xel ci jigéen ñi mu ne waaye man Maodo maa ngi leen di moytandikuloo ñeenti melokaan yi nga xam njanaaw yi am nañ ko ñeenti njanaaw a ngi nii ñenti melokaan yi ñu am na ngeen moytandiku yooyee melokaan ñu ne ko mawda yan la mu ne attawuus wa nasr wal ghurab wa diig lii keroog ci jag saw la ko wax nen bu leen yor melokaanu jàmbu jóob bu leen yor melokaanu tan bu leen yor melokaanu baaxoñ bu leen yor melokaanu séq ñu ne ko ba jàmbu jóob mu ne jàmbu jóob foo ko fekk day réy réylu day naw jëfam kenn du mën a dëkk ak moom ndax ku mu dendal def na la moo la gën mu ne nag nit ki nag bu fekkee anaani yaa ngi ci moom dara am dootu baaxati égoïsme mu ne bu leen yor melokaanu tan mu ne tan addunaam yëpp mooy lekk ak naan nu mu ko amee nag baax na du ci sàmmoonte la ca sell ak la ca sellut te nit nag buy wut war naa tànn lu sell kon nag da ngeen moytandiku melokaanu tan ñu ne ko akbar mun a melekaanu baaxoñ mun a baaxoñ dafa xiir te neena xiir xir li muy mën a gaa yàqal nit ki moo ëpp lim ko mën a jariñ mu ne buleen yor melekaanu fiq mun a fiq day melekaanam mooy bis bu nekk mu amub séet kon nag di takk di wàcc rek mën naa ñàkk mu ne kon na ngeen yem ci benn soxna ñaari soxna ndegam man nga ko ñetti soxna ndegam man nga ko ñeenti soxna ndegam man nga ko waaye nag euh, bu fekkee ndax xam ngeen ne mënu leen a normal nag nangeen ngeen ci benn mu ne ñeenti melokaan yii ma leen wax ku ci ku ko moytiwul ba jël jukko yooyu jukko woo ko ëllëg boo dajee yàlla yomal xiyaam nee na da am gàcc ci kanamu yàlla mu dajal leen leen tool bii nag ngir liggéey la ngir waxtaane ku nekk xamal sa moroom lank nga xamal te jàppale ko ca mu ne tool bi ngir dundal fi lislaam la ngir dundal fi tarixa bi la bu ngeen xëyee ku ngeen jitu laajte leen ko bu ngeen bu feebaree seeti leen ko bu ñàkkee dem leen ngeen dimbali ko ngeen nekk benn loxo benn bopp benn bëgg-bëgg te ngeen xam ne tool du euh, tool bi ngir liggéey dund ak dundal njaboot la waaye nekkul nag béréb boo xam ne dañ fi bañante wala ñu fi noonante waaye tool bi tool la ngir ngir taalibe yi man fee daje xamante ànd nekk benn lii moo indi woon jagsaaw radiyallahu taala anhu xam naa ñu ngi foofu guddal nañ sax waaye beneen yoon incha allahu ñu jàll ci yeneen yi wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu Maodo sellal lu sunna mooy donoy yoneen be yaa baax yaa sellal lu sunna Maodo sellal lu sunna mooy donoy yoneen be ca loxoy ca kaw